ndax dafa am fii ci biir Kaolack ay kilifa yu mag yoo xam ne ñu ngi woote yeneen kilifa nan leen président de la république nee na na ngeen woteel pour diw loolu laa wax ni du dëgg ay sos la ndax Macky sàll du def loolu Macky sàll yónniwul kenn il est au-dessus de la mêlée c'est le président de tous les Sénégalais donc nañu bàyyi di utiliser tour président la république di wax ni moo leen yebal di woo ay nit naan leen ah président de nee na na nga bàyyi li nga nekkoon jàppal diw loolu laa wax ni loolu du dëgg loolu du dëgg kilifa boobu di ko def na ko bàyyi xaw ma lan la ciy wut waaye du ci am ndam ndax yëg nañ ko donc loolu nañu ko bàyyi waaw. bi campagne bi dooree ba léegi gis nañu. leader yi ñëw di jàppale le président Serigne Mboup donc bu ñu demee ba à vingt quatre heures ou quarante huit heures de la fin de la campagne électorale war ñu toog saytu wax ak taskatu xibaar yi wax ak population Kaolack bi nga xam ni ñun ñooñu la ñu yaakaar incha allah le vingt trois pour ñu voteel suñu candidat li tax nag ñuy woote dafa fekk ne campagne électorale bi dafa am ay problème yu bare yu ci am yoo xam ni séentu nañ ko séentuwuñu ko mais dal na ci kaw ànd nawle benn bi mooy la violence te tubaab di wax ni la violence est de des ceux qui n'ont pas de programme ñi nga xam ni ñoom xeex xuloo saaga loolu moo leen tax a jóg gis nañ ni violence boobu ci première semaine campagne électorale bi dal na suñu kaw naam nous sommes dans un état de droit fa ñu waroon a jaar yépp jaar nañ fa mais ba fi may wax ak yéen nii tey les dossiers sont restés sans suite donc foofu ñuy laaj ndax dafa am ñaari Kaolack walla benn Kaolack violence boobu ba dalee suñu kaw ña ñu war a waxal wax nañoo ñoom ña ko war a yëg fii ci biir Kaolack yëg nañ ko le procureur dem na ba autosaisiru ci benn dossier boo xam ni ça concerne un de nos responsables qui habite Médina Baye mu nekk loo xam ni lu doy waar la. di ko métitlu ñu ne tey bu ñu taseek waa Kaolack danañ leen xamal ni ñun au nom de ànd lépp loo xam ni waroon nañ ko def ci biir campagne bi def nañ ko ba mu mat sëkk ñi nga xam ne nag leneen moo leen taxoon a jóg ñooñu ñu ngi ci seeni pexe naam waaye le le chien aboie la caravane passe ñaareel bi mooy les problèmes de carte bala ngay ne naam ne fa parce que doo campagne électorale ba jour du vote ñu bëgg la xañ sa carte électorale loolu lañu wax ni tey bu ñu jàkkaarloog journalistes yi waxtaan ak waa Kaolack yaakaar naa ni autorités yi ñu ngi ñuy déglu carte yi nañ ko génnee ñu joxe ko nu mu gën a gaawee carte électeurs yi nga xam ni dañ ko téye te xamuñ lu tax ñu téye ko nañ ko libérer aux ayants droit ndax nag nous sommes en démocratie ñun xam nañu carte fa mu jógee au niveau euh, euh, de la direction euh, DAF lay commencé jógee fa dem ministère de l'intérieur jógee fa dem direction général des élections jógee fa wàcc si fii au niveau de la préfecture ñuy laaj ndax carte yi boog dafa am beneen feneen fu mu jaar ci ay politiciens APR ñu bloqué ko waaw wala déet parce que nit ñi jotuñu seen carte ba léegi foofu nag liñ ciy wax mooy lenn on ne demande pas nous exigeons de la part des autorités de Kaolack de libérer les cartes aux ayants droit buñ ko deful nag lu xew ñoom nañu endosser l'entière responsabilité parce que nit ku nekk na nga war a voter te ñun suñu ànd bii muy ànd nawle wóolu nañ suñu bopp ñun waxatuñu victoire ñun on est au-delà de la victoire ñun raz de marée raz de la ñuy wax maanaam tey buñ doon natt suñu candidat Kaolackois yi danañ ko voter à plus de 65 pour cent incha allah donc loolu tey dañ danañ ko sàmm ni ñu koy sàmmee nag mooy ñu dem ci sécurité bi parce du ñu liggéey ba fii ay samba booy nar ñu yàqal suñu victoire du ñu ko nangu du ñu ko nangu lépp loo xam ni ñoom ñu ngi koy fexe ñun yëg nañ ko ndax bloqué nañ carte yi pare nañ pour génnee ay ordonnance may interpeller ñi nga xam ni tey ñoo nekk ànd nawle nekk dans les rep dans les dans les bureaux de vote di ñu représenter nañu vigilant jël seen matuwaay nañu jël seen responsabilité dès l'ouverture des bureaux de vote les bulletins de Serigne Boub les bulletins de And Nawlé nañu xool ndax yem na ak bulletins yi ñeneen yi man du ma tudd benn coalition ñun on fait la propagande de notre candidat mooy le président Serigne Boub duñ fi tudd beneen tur waaye nag bulletin And Nawlé yi saal boo xamee ni gis nañu bulletins yi dafa néew on vous demande de bloquer l'opération en attendant ñu woo suñu mandataire ak préfet parce que du ñu nangu ñun suñu ay bulletins ñu koy néewal di parce que façon gu sàcc la ñëw indi dans un bureau de vote ñu ñu ne fii kat y'a six mille votants ñu ne ah ànd nawle kat mille bulletin lañ fi loolu kan moo koy nangu ñuy interpeller le préfet parce que c'est l'autorité qui doit organiser les élections nous inter interpellons le gouverneur parce que ñoom ñoom ñoo war a trouver la solution qu'il faut à ce problème léegi nag wure ba dem na këng lu waay deful woon lu waay munu ko woon munul woon def munu ko def ci 48 heures yi may xamal waa Kaolack ne dañoo liggéey démb tey doogu ñëw li tubaab di wax le travail en amont Et j'en profite pour féliciter ADECA. Parce que le travail en namo a été fait par ADECA. Politique, travail de terrain la Travail de terrain boobu moo waral tey zone boo dugg ci biir Kaolack gis fi ku taxaw ne man Serigne Mboup laa donc ñooñu liggéey liggéey boobu on doit les féliciter. am na nag ay autorités yoo xam ni dañoo ñàkk pexe di woote ay kilifa. nan leen son excellence présidence de la république Macky Sall moo ñu yónni nee nañ nga woteel diw ku leen ko wax xamal ni kooku intoxication lay def désinformation lay def c'est des contre vérité qu'il développe te Macky Sall yónniwul kenn d'ailleurs nous profitons de cette tribune pour attirer l'attention du président de la République son excellence Macky Sall pour lu dire que il des gens qui font de l'intoxication et de la désinformation en utilisant son nom comme pour corrompre d'autres autorités afin que ces dernières votent pour l'autre camp. Cela, on ne l'acceptera pas. ki koy def biobo mu bàyyi ko parce que xam na ni yëg nañ ko te duñu ko nangu li am ba am nag mooy ñun de nous avons la sérénité ñun de nous avons vraiment une confiance totale ci fi ñu jëm ndax Serigne Mboup caravane yi muy diriger Kaolack ku ko gis xam ni Kaolack a fait son choix mm-hmm. le choix de Kaolack c'est Serigne te wone na ko ci caravane yi donc choix boobu le 23 janvier 2022 bu jibee du ñu nangu kenn détourner suñu suñu suñu suñu suñu victoire du ñu nangu kenn laa wax détourner suñu victoire parce que suñu bakkan lañ ci teg la victoire et devant nous au-delà de la victoire c'est un raz-de-marée que nous attendons ici ak Kaolack te loolu bu ngeen ci bëggee xam dara mais doxantu leen ak ay photo Serigne Mboup population yi ci seen wàllu bopp ñoo lay ñaan photo yi di ko taf seeni biir kër donc candidat boobu c'est un candidat boo xam ni tey waa Kaolack ñoom ñoo ko choisir donc ñu ne woon tey dinañ toog fii nag passer message bi pour wax ak waa Kaolack wax ak autorité yii ñu jël seen responsabilité parce que ñoom bu ñu jëlul seen responsabilité ñun danañ jël suñu responsabilité parce que du ñu nangu kenn di ñu tooñ wala kenn di pare du ñu yàqal suñu victoire donc c'est un message que je lance au gouverneur de la région de Kaolack au préfet du département de Kaolack et à toutes les autorités qui sont impliquées dans le processus de cette élection-là.